الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان مبكيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw ba nu tàmbalee ci turu borom bi tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ci weeru baraxlu weer wi di weeru saabaan ginnaaw weer wi ñu war a teeru gan gu mag xam ngeen ne bu fekkoon ne réew mooy teeru gan réew tey réew mi buñ doon teeru kilifa gu mag gu war a jóge bitim réew di néew boo rombee ci mbedd yi ci tali yi da nga koy yëg ci defaraat bu ñuy defaraat tali yi ak garab yi léeg-léeg sax yenn barab yu muy jaar ñu taf fa ay posteeram naka noonu tey bu doon borom kër gi mooy teeru gan léeg-léeg dina ko jaral sax mu changé peinturu këram changé ay meuble yu nekk ci biir kër gi bu doon waaji la mooy teeru gan di ko di takk soxna néeg bi soxna si dal waaji lépp lay changé préparé bu doon soxna la su borom këram tukki di war a ñëwaat da ngay gis moom ndaw si muy waajal dikk gi ci lu nekk naka noonu ñun jullit yi mbokk yi weer wii nu nekk ku ci préparé wul weeru koor sa weeru koor du baax du jag li tax bis bu nekk jullit yi woor ba koor gi jeex te du jeexintal ci ñoom dafa fekk seen saabaan moo baaxul ku sa saabaan baaxul sa weeru koor du mën a baax ndax gan gi léeg foog nga waajal ko ba bu dikkee am loo mën a jële ci moom buy dem am lum la bàyyee waaye gan ngoo xam ne waajaloo ko léeg-léeg sax kenn ci ñun buñ ko nee weeru koor gi de des na juróomi fan nga dégg mu ne oh là là woo non ngeen ne ñaa weeru koor ñaata weer moo ci des ñaata fan ñu ne ginnaaw suba la mu ne sëtët nga gis waa ji comment kanam gi commencé lëndëm mu mel ne ku war a jóge àdduna dem àllaaxira c'est parce que dafa war a woor rek ku mel noonu nag mbokk yi lan lay jële ci weeru koor kon du ci jële dara ci weer wi nu nekk li war ci ñun mooy ñu defar juróom ñaari yéene niyaatun yambagi istishaabuha qabla duxuli ramadan ay yéene ngi nii yoo xam ne ku ko sellalul ku yéenewul yéene yooyu ci xolam ak xelam balaa ramadan ñëw mooy sa ramadan du baax juróom-ñaari yéene la mbokk jullit yi nan ko takk préparé ko gan gi nekk sunu kanam ndax sunu ramadan mën a baax ndax yàlla mën noo nangul ci weeru koor ixwatal iman yaqulu alxabibu muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi sahihi muslim عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال في حديث القدسي اذا حدث عبدي بان يعمل حسنه فانا اكتبها له حسنه ki yàlla yónni woon ci jaam ñi nee ci hadis boo xam ne abu hurayra moo ko nettali muy hadisul qudsi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na kenn ci jaam ñi su nammee def yiw mu namm def tiyaaba namm def jaamu yàlla borom bi tabaraka wa taala nee na fa ana aktubuha lahu xasana man yàlla man maa ko koy bindal tiyaaba maa ko koy bindal yiw te def ko yéene rek kon looloo tax mbokk yi foog ñu defar sunu yéene yi yenent bi alayhi salaatu wasalaam ne innama al amal binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa yenent bi nee na jëf yëpp yàlla nga koy atte ci yéene ab jaamu yàlla ab julit su yéeneem baaxul dara du baax même bu defee jëf ji du baax lan moo tàqale diggante jàngu ak jàpp ki jël satala di jàngu raxas loxoom sëlmu raxas ay tànkam lan moo ko tàqale kii jàpp yéene kii saraxe ak kii maye ñaar yooyu lan moo leen tàqale ki génne alal ci poosam joxe lan moo tàqale yéene bi lan moo tàqale maye gi ak saraxe bi yéene ñu bari ci ñun nag ndeysaan da ngay gis même vendredi julli ji jumaa nii ku ñëw rek jàpp jël si yaada naa dem jumaa doo ci jëlee lu dul naa dem jumaa amoo tiyaaba foog ñu defar suñu yéene yi ci wàllu jaamu yàlla yi xataa booy lekk nga lekk ngir jaamu yàlla bu lekk pour suur soo lekkee pour suur suur rek ngay am kon nan defar yéene yi ab jullit mooy koo xam ne day yeesalaat yéeneem bis bu nekk ci ibaada bu mu war a dugg ayuha al ahbab wa min anniyat al matluba fi hadha shahr bokk na ci yéene yi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ci ab jullit ci weer wi bi ci njëkk mooy niyatu xatmul quran aksar min marra ma tadabbur weeru koor ñëwagul de pare léegi yéene su weeru koor ñëwee dinaa ci jàng quraan nangami yoon su fekkee kuy góor góor la mu ne nangami kaamil bi iznillah dinaa ko jàng ci quraan waaye bul jàng quraan rek comme kuy njëkkante pour mu jeex léeg-léeg ma ni mbokk yi li tax du nu jëriñu yenn saa yi ci sunu xiyaamul layli ci alquran bi ñuy jàng mooy dañ koy taf tafee pour jeexal kaamil bi ci weer wi fekk jàng quran kilifa gu mag da daan def su fekkee doomam du jàng alquran rek mu ne ko yaa ngi jàng alquran mu ne ko naam ya abi aqra'u alquran fi kulli sabah yaqra'u alwalad alquran lakin al abu yasaluhu su'alun wahid ya ibni taqra'u alquran wa yujibu ibnu naam ya abi soo bu nekk xale bi day jàng alquran papa ji bu ko rombee rek ne ko yaa ngi jàng alquran mu ne waaw soo bu nekk ba benn bis rek xale bi ne baa ji waaw yow bis bu nekk yaa ngi jàng alquran bis bu nekk mu ne voilà tey nag dinaa la wax boo laajuloon du ma la tont iqra alquran ka annahu unzila ilayk jàngal alquran mu ngi mel ne ci yow lañ ko wàcce ñun dañuy jàng alquran di ko wàcce ci ñeneen ñi loolu mooy suñu problème soo ne yaa ayyuha allazina amanu nga ni misla abu bakr wa umar yaa ayyuha allazina kafaru misla abu jahal wa firawna ayna nahnu min alquran izan kon ñun luñ ciy jële même ci tafsir yi ci jàkkay weeru koor yaa ayyuha alladina amanu misla abubakar wa umar yaa ayyuha alladina kafaru misla aba jahal wa umaya ibnu ja- ibnu xalaf hakaza fun jëm alquran pour nun la kitabun anzalnahu ilayk lituxrija annasa min azulumati ila annuur yàlla nee na téere la boo xam ne maa ko wàcc ci yéen pour mu génne leen ci lëndëm yi yóbbu leen ci leer lu tax alquran ne fi jullit yi yor ko ba léegi ñu des ci lëndëm te ñu njëkk ña alquran génne leen ci lëndëm war na nu laaj loolu sunu bopp lu tax ba léegi ñun ñuy jàng alquran nekk ci lëndëm te gaa yi démb bi quran ñëwee dañoo génn ci lëndëm dem ci leer ñun ba léegi ñu ngi ci lëndëm gi génn gunu kon dafa des teguñu ko place am wàcce wuñ ko place am bal sax dégg ngeen semaine bi passé seen professeur boobu li mu ci wax mooy alquran culture grec la nekkul téere bu yàlla wàcc ak yeneen ak yeneen yu mu ci wax ndeke kon ci weer wii la ab julit di yéene léegi lay préparé moo quran weeru koor soo ko waajalul léegi doo dem ñaareelu niya tawbatu sadiqa min jamii zunubi salifa wallahi mbokk yi bu nu tuubul ci weer wii sunu bakkaar yi passé weeru koor bu ñëwee du nu munal dara boo bàyyee bëggan gi ne këtt na jonn taxaw ci buntu néeg bi ne asalaamaaleykum nga ne da ngay defar du la sax du la sax wekk du la sax respecté léegi balaa weeru koor ñëw la ñuy tuub yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuur lan mooy tuub tuub borom xam-xam bi biñ koy melal dañu ne mi ngi mel ne nga dëggu xaalu safara ci sa tànk ndax kenn ci ñun mbokk yi ki julli si jumaa tey yàlla xéewalal ko boo eggoon sa kër ngay simmi sa dàll teg ko ci xalu safara est-ce que di nga tegaat sa tànk ñaareelu yoon loolu mooy déedéet mais xoolal nun sunu tuub bés bu nekk ñu dëkke tuub jadda zamanu wa anta talaab kam taqulu gadan gadan atub ñaata yoon jant fenk soo xëy bés ñëw bu bees nga naan dinaa dinaa tuub dinaa tuub dinaa tuub ba malakal mawti xëy fanaan ci sa diggante bopp ak sa mbagg fëgg la ne la jaamu yàlla bi yow laa jël si nga ni da ngay tuub foofu du dem ixwaan yi laa bu dañu tuub léegi si mekki bakkaar yi pour mën a waaj weeru koor xam ngeen sart tuub bi ci gën a ndaw mooy an nadamu ala ma faat rëccu li passé soo rëccuwul li passé nga waajal li sa kanam mooy du baax izan niyatu tawba as-sadiqa yéene tuub tuub bu sell min jamii zunubi salifa ci mboolem bakkaar yi passé lool mooy tax sa weeru koor baax ñetteelu niya niya an yakuna hadha ash-shahr bidaya intilaqa lil khayri wal amalu salih ila al abad bi iznillah il faut doomu aadama daal di defar yéeneem ci weer wi mu nekk point de départ bidayatul intilaq point de départ doomu aadama il faut mu am point bu muy dépare ak point d'arrivée fi ngay dépare su baaxulee arrivée bi du baax li tax sunu weeru koor du baax mooy sunuy départ moo baaxul c'est parce que dañuy ñëw rek suba la koor ñëpp woor dog jot na nit ñi dog dañuy julli ji nit ñi julli ji jeex na waaye ñu ëpp ci ñun xamuñu lan moo tax weeru koor jóg xamuñu lan moo tax ñuy woor loolu gars yi naan falsafatu ramadan philosophie bi nekk ci ramadan dëgg dëgg dëgg ñu bari ci ñun xamuñu ko ñu bari lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam du hasard mu taxaw ci kanamu sahabatul kiram naan leen rubba saimin wa laysa lahu min siyaamihi illa aljuu wal atash wallahi am na ñu woor ba ngoon jële wuñ ci lu dul xiif ak mar pourtant lekkuñu de pourtant waa ji xëdd na bu mu déggee ñuy salaatu mu arrêté jàpp dem julli ji ba ngoon timis mu dégg ñu nodd mu doog a dog waaye yonent bi nee na jëlewu ci lu dul xiif ak mar li gën a dangereux mooy nga woor ba koor gi jeex jëlewoo ci lu dul xiif ak mar parce que lu tax xamuloo lan moo tax mbir mi jóg xamuloo lii lan moo tax mu jóg xamuyoo xamuloo yow loo ci war a am kon foog ñu defar sunu point de départ bidayatul intilaq al xayriya wal amalu saalih ak pare jëf ju baax man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad sunu borom tabaraka wa taala nee na ku mu wóor ne ay guddee ngi ñëw di nga dajeeg man mu ne na nga pare jëf ju baax wala amalu saalih jëf ju baax joo xam ne da lay yóbbu ilal abad du ay fan ñu bari ci ñun dañuy woor weeru koor ngir fan waaw maa ngi góorgóorlu de maa ngi takku dama koy jéngu weeru koor du lu ñuy jéngu non dama koy jéngu mu jeex déedéet après su jeexee moo tax nga gis gars yi delluwaat looloo tax weeru koor gi du jeex sax lu nga gis ñu commencé bind taraag yi waaw ñu doon xiifal association xiifal nga gis ñu bind taraag yi waaw tabaski xaw ma korité c'est nangam korité c'est nangam korité c'est chez c'est parce que koor gi baaxul dafa am borom xam-xam bu bàyyi ba weeru koor gi ndeysaan kori gi mu fekk ay nit yuy tëgg soirée ci korité mu dugg si ci biir soirée bi mu ne dama am benn laaj bu may laaj mbooloo mi ñu ne bismillah mu ne ay jullit ngeen ñu ne waaw mu ne ndax woor ngeen weeru koor ñëpp ne waaw mu ne ñi woorul woon na yëkkati seen loxo kenn yëkkatiwul mu ne kon ñëpp wooroon nañ ñu ne waaw mu ne ndax nii la ñuy sante yàlla ku woor ba koor gi jeex ndax da ngay soirée ndax noonu la ñuy sante yàlla gaa yi ne teg mu ne bu fekkee yàlla nangul na leen du nii la ñuy sante bu fekkee yàlla nangul na leen di ngeen war a rëcc kon yéen lii waru leen te nag loolu rek moo am woor nga ba koor gi jeex yàlla nangul na la wala yàlla nangulu la aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ñetteelu yéene ñeenteelu yéene bu nu war a defar ci Sha'ban balaa Ramadan mooy niyatu akbar akbaru qudara mumkin min alhas min hasanat fi hadha ash-shahr fa fiihi tatadaafu al ajr wa thawaab mbokk yi ci yàlla ndeke war nañoo defar sunu yéene ñeenteelu yéene bu ñu war a defar ci weer wi mooy ñu xam ne ndeke weeru koor weeru uttiyaaba la uttiyaaba léeg-léeg waa Sonatel ak ñeneen ñi tigoog orange ak ñu demee noonu dañuy jékki-jékki rek daa di sonné portable yi daan ne promotion am na boo jëndee 1000 francs am 2000 ndeke weeru koor lool la mawsim la saison la boo xam ne al amal tatadaaf jëf yi dañ yàlla da koy double weeru koor nuroowul ak yeneen bis yi ay waxtoom ay minitam nuroowul weer la wu ab jaamu yàlla di profito wàññil fréquentation grand place yi wàññil naani ataaya yi wàññil guddi yi ngay dem di taxawaalu lolool ak sa boroom ak téeréem tudd yàlla jàng alquran julli ndax say tiyaaba bëri c'est parce que da nga soxla ay tiyaaba parce que fa la ñu jëm tiyaaba du fa doy dañu amoon benn góor ci suñu jumaa su noddee tisbaar ba pare wala mu nodd waxtu mu woon a nodd danaan ñëw leen julli balaa ñu leen a jullee ñëw leen julli balaa ñu leen a jullee lu baax du doy lu baax du doy lu baax du doy wax na dëgg wallahi lu baax du doy te fële ñu jëm tiyaaba rek moo fay nangu amul leneen yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim amul leneen kon nag su fekkee weeru mel noonu xoolal bis yi nga xam ne dañ ne promotion am na ñëpp ay jënd dañ koy affiché sax nga gis jaaykat yi koo gis mu ne promotion waaw bu fekkee yàlla indi nañu weeru promotion tiyaaba waa ji di xulle ba weer wi jeex amu ci sax 500 francs amuñ sax benn tiyaaba fu ñu jëm fu ñu jëm te loolu mooy li dal jullit di tey lu toll ne weeru koor di ñëw fi mu nekk ni ñu bari seen xol yi sax léegi dafa dafa commencé xat jàpp na ne weeru koor weeru mbugal la ndeysaan benn waaye xëy na jàkkaarloog yonente bi alayhi salaatu wasalaam kanam ngi ñëkk yaram baa ngi weex kawar gi cuqaaral yonent bi ne ko maali abusa maali araka abusan lu tax ma gis la nga ñëkk nii mu ne ana saim dama woor yonent bi ne ko koor du mbugal mbokk yi ñun waa Sénégal nañu yëg ne koor du mbugal koor jaamu yàlla la saxaaba yi ci koor lañu xeex badr ci koor xew-xew yi gën a rëy ci lislaam genn wàll gi yëpp ci koor la xew kon loolu moo leen di wan ne weeru koor weeru jaamu yàlla la ixwatal iman niyatu kasb akbar qadrun mumkin min alxasanaat yéene lu gën a rëy ci ay tiyaaba da nga yéene loolu pour weeru koor bu ñëwee nga mën a am tiyaaba yooyu fi hada sahr nee na ci weer wi tatadaaf al ujur wal si wa sawaab ci weeru koor gi ci weer wi la yàlla subhanahu wa taala di multiplier di doubler ay tiyaaba ak fay juróomeel ci yéene yi ñu war a defaraat niyatu tasxiixu suluk foog ñu yéene defaraat suñu comportement yi ixwatal iman xool leen julliti Sénégal seen comportement ndax baax na wala baaxul xool leen comportement jullit yi ni ñu mel daanaka réew mi sa yaram day daw ci comportement yu ñaaw ñu war a defaraat sunu melokaan wal xulq war a defaraat sunu jikko wal muamalat al xasana li jamii nas bu fekkee weeru koor a ngi ñëw te yow defarawaatoo sa comportement defaroo sa jikko defaroo jëflante bi ngay jëflanteeg jaami yàlla yi nit ñëpp sa dara du baax lan moo tax tey ñu ñu mel nii sunu melokaan yi ñaaw sunu jikko yu yées koo jëflanteel mu ne bàyyi leen ma diw sori leen ma diw waaw jullit diw de jullit la du génn ci jàkk ji waaye te yàlla tabaraka wa taala ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar julli day tere nit def lu bon te julli gi changé wuñu ñuy julli ba tey mel nii nu mel kon nanu defaraat sunu comportement yi nan defaraat sunu jikko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn waay fekk na ko mu toog mu ne ko pëkk pëkk ci loxo ndey joor ne ko yaa Muhammad ma diin mu ne ko addiin xusnul xulq waa ji génne ndey joor ñëw càmmoñ laajaat même laaj yaa Muhammad ma diin mu ne ko addiin xusnul xulq waa ji ñëwaat ci ginnaaw waa ji ñëwaat ci kanam ñeenteelu laaj bi waa ji bi mu buggee génn jumaa ji yonent bi dafa xëj loxo bi mu toog yonent bi ne ko innama bu istu li utammima makaarima al axlaq yàlla ma yónni pour ma mottali jikko yi rafet yi ad diin xusnul xuluq diine mooy nga rafet jikko sooy julli di woor di jàng alquran di def bépp lu yàlla santaane ak yonent fekk sa jikko baaxul amoo diine yonent nee na ad diin xusnul xuluq nañ defaraat sunu jikko yi wal muamala alxasana ma annas nit ñépp nag lañ wax nañu defaraat suñu jëflante ak ñoom nekku rek yaag Samba yaag Demba yaag association bi yaag nit ñi déedéet maa naas jamian sa jik sa sa jëflante da nga koy defar ak ñoom waaye man de bu may defar ak ay nit ñi danaa normal waaye bu may defaral yére nag loolu moom du melokaanu ab julit mbokk julit yi kon nanu defaraat loolu pour sunu diina mën a baax pour ñu nekk ay nit yu jub xoolal tey daanaka mën nga ne ci réew mi nit ñi rus nañoo am jikko yu baax nit nañu nit ñi dem nañ ba rusa wax wax yu baax parce que démb dañ may nettali benn xale bu jigéen bu bëgg a baax ne day muuru ñu dóor ko seen kër dóor yu métti waxuma loolu yamu ñu génne ko école bi muy jàngee xale bi affaire bi jàpp ko jàpp ko affaire bi jàpp ko ba mu commencé feebar am ku dégg loolu benn jigéen ci xaritam yi dégg loolu dem di ko seeti ñëw seen kër asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam diw laay seet ñu recevoir ko ci salle bi mu toog moo xale bi yaay ji ñëw toog mu jékki-jékki daan ne ko waaw diw yow da ngaa commencé jeex lan la yaay ji ne dafa bëgg a bon ndax nee na day nekk ibaadu dafa bëgg a bon ndax nee na day muuru ah ndeysaan ba pare ñu bëgg Sénégal dem wallahi dañuy sonn mais du dem ndax diine moo ñu war a yóbbu te diine la ñu mujjël ginnaaw ku bëgg a jóg dem ci diine ñu ne la déedéet du fii ba pare ñu bëgg mbir yi baax du dem ixwatal iman juróom benneelu yéene bu ñu war a defar niyatul amal li haza din wa nashrihi bayna annas mustagilan ruhaniyatu haza shahr juróom benneel bi ñu war a defar mooy niyatu amal li haza din moom nañu defar suñu yéene pour liggéeyal diine julli ak liggéeyal diine ça fait deux julli ak liggéeyal diine ak aji màkka ça fait deux liggéeyal diine ak woor weeru koor ça fait deux ñu bari dañu jàpp ne bu ñuy julli ñu ngi liggéeyal diine déedéet liggéeyal diine mooy tasaare ko keroog ba Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu wa ardaahu duggee ci diine ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loxo bi loo yonent bi tàllal loxo ndey jooram Aboubacar teg ko ci xam nga Aboubacar benn laaj la laaj yonent bi alayhi salaam yow yonent lii ma dugg nii lan moo ma ci war mu ne ko lii ma war moo la war li ma mar war yonent man yonent bi moo la war yow Aboubacar Aboubacar daal di génn bis boobu daal di indil yonent bi Ousmane ibnu Affan ne ko kenn ngi nii mu génn deuxième jour indi Ousmane ibnu Maazun mu génn troisième jour indi Arqam ibnu Abil Arqam mu génn quatrième jour indi Bilal radiyallahu anhu ak juróom ñaari fan Aboubacar saa yu génnee dina indi benn ponkal ci diine ñun ñaata at ñu ngi ci daawa bi ñaata nit la ñu indi ku nekk fi nga toog tontu sa bopp ku nekk waxul ñaata nit nga dugal ci sunna foog ñu liggéeyal diini al amal li haza diin liggéeyal diina ji mooy tasaare ko yonent bi dane woon fal yu ballig shaahidu minkumul ghaib yéen ñi fekkee jox leen ko ñu ñëwul am na ci ñoo xam ne ci ñun seeni soxna bu ñuy nelaw fajar sax ñemewuñ leen a yeeg e jógal julli kon dañ yaakaar du ndékki fan lañ jëm bu fekkee duñ liggéeyal diina ji diina ji ay sahaaba ñoo ko tasaare war ay fas ñëw ba ci océan Atlantique bi ñu waat ci yàlla ne bu ñu xamoon ne ginnaaw géej gi ay nit a ngi fi danañ xuus géej gi yóbbu diine ji ñun ñoo ngi toog fii wallahi bu ngeen duggee ci àll bi chrétiens yi ñu ngi christianiser Sénégal te ñoo ngi ñëw Dakar lañ jëm si ay dëkk yu ndaw ndawaan ngay dem nga fekk jàkk yu ñu soppi église fa lañ ñu toog fii rek ñun la budda bil amal li haza din wa nashrihi bayna nas ñu tasaare ko ci biir nit ñi ku nekk ki nga dendal hatta xeex sax fal yuqaatil allazina kafaru ñi nga xam ne ñoom nga jege sax ñoom ngay xeexal bu fekkee ay yéeféer lañ waaye bu fekkee ne daawa la ñoom ngay njëkkee waaye bu fekkee ñun nii rek lañ toogee sa yoon am na si ñoo xam ne jàpp nañ ne diine ustaas yi ñoo ko war a tasaare ñoom amuñu benn rôle ci diine toog rek tu fay lu ko yonent bi waxoon keroog ba mu duggee ci diine ba mu tàllalee loxoom daal di dugg ci diine mu yëg ne simmi na yére yi mu soloon sol na yeneen yére yu bees dugg na ci lislaam tufaylu dane yonent ya rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim yonent waa dawsu ñu ngay naan sàngara ña ngay njaaloo ña ngay def yi bon yónni ma ma nekk benn ndaw bu dem génn ji leen yonent mi ne ko demal tu faylu bi muy ñëwaat ci la indaare Abu Hurayra bi ngeen dégg ñu ne mokkal na ci hadis yonent bi 5374 hadis ndeke yonent bi doogu dugalu ko ci diine kan moo ko dugal Tufayli ibnu Amrin moo dugal Abu Hurayra ci islam Tufayli ibnu Amr xoola Abu Zar ki ñi xam ne borom xam-xam yi nee nañ mooy rubul islam keroog ba mu duggee ci diine ne yonent bàyyi ma ma dem sama dëkk xifaar ndeysaan ba mu demee dëkk ba la indil yonent bi dëkk bi ba leen yonent bi séenee ñuy ñëw jëm Medine pënd beeg poussière beeg nit ñi ni ñu bëree yonent bi daf leen xool ba caagri daan ne xifaarun xafara lahumullah waa xifaar a ngi ne di ñëw yàlla baal na leen ñoom ñëpp benn nit ñun nag ana ñun ay na nahnu min haula ñun ana ñu ak ñooñu ñun toog rek dafa ne julli ji dem jàng quran dem dars dem défilé dem défilé amakinul muqaddasa ayyuhal ahbab makka la fekk baax te sahaaba yi dañ ko bàyyi woon da ngay sangu léegi léegi naan ci ndoxum zamzam nga julli maqaama ibrahim ñaari rak nga ñëw laal xajaratul aswad nga ñëw daw safa ak marwa sahaaba yi bàyyi ko fa tasaaroo ci àddina bi am na ñoo xam ne seen bàmmeel yi ñu ngi pakistan ñeen seen bàmmeel yaa ngi inde ñeen seen bàmmeel yaa ngi iraq ñee ñi ngi Iran ñee ñi ngi partout dans le monde da ngay ñëw ba Mauritanie wala Maroc ñu ne la am na sahaaba yu ñu fi suul lu tax ñu bàyyi fa place yu sell ya pour yëg ne am na lu gën a rëy loolu lan moo gën a rëy mooy jottali kàddu yàlla gi liggéeyal diine ji nekk soldat ci diine ji ba wadd Xaalid ibnul Walid lu tax hadis doo gis Xaalid ibnul Walid lu bëri Xaalid ibnul Walid borom xam-xam yi nee nañ yéreem bi mu doon sol yaramam bi yaramam bi foo xool rek am na jaasi juñ ko caw wala xeej buñ ko jam wala fet buñ ko jam yaram bi yëpp suñ ko doon misaal ñu ne yaram bi dafa nuroog yére Baay Faal lépp ay daax daax la yaram bi waaye xoolal mu tëdd ci lal di sukuraat gaa yi wër ko mu ne maa ngi nii man Xaalid ibnul Walid ci terrain bi laa bëggoon dee tey maa ngi nii di dee ci sama kaw lal mu jékki-jékki rek dégg fas yi di dem di tasaare diine fas yi ñëw ba ci fenêtre am daal di yuuxu mu ne loolu lan la ñu ne ko sahaaba yi ñooy tasaare kàddu yàlla rek mu ne dañuy tasaare kàddu yàlla may dee ci sama kaw lal mu jóg gàddu jaas ji daw ba ci bunt kër gi daal di daanu foofu la dee ñun ñun fan lan toll ci ñooñu mbokk yi ci yàlla juróom ñaareelu yéene bu ñu war a baaxal pour suñu koor baax mooy niyat wadu barnaamij mali bil ibadat wa taat wal jiddiya bil tizaami bi foog ñu teg benn programme istimaalul awqat gis nga boo duggee ci classe yi école yi di jàng da ngay gis maître bi dafa teg benn calendrier benn këyit gu ndaw goo xamante ne ci lay programmer heure yi muy jàngale leçon yi muy jàngale boo ñëwee ci classe yi ci arabe nga gis ñu def ko mu tudd istimaalul awqat emploi de temps temps bi nu mu koy utiliser koor gi loolu ngay def da ngay def benn feuille boo xam ne barnaamij sama koor gi nii laa koy jaamoo yàlla bu ma yeewoo 4 heures nangam laay def ba nangam ma def nangam ba nangam ba fajar jot ma dem julli ji jàkk su ma jullee jàkk ba pare nangam laay def noonu ngay def ba heure tëdd jotaat waaye bu fekkee ne yow amoo bon programme ku amul programme lu muy demee xataa gouvernement yi sax da ngay dégg ñu ne bu leen wateel waa ji amul programme yow nga nekk jullit amoo programme jullit bu amul programme am daram du dem allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala jtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين وصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تجعلنا جبنا فنضعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله